Comment ça va La rubrique. Oui, Tata Maïté, comme tu as l'habitude de le dire, il faut que ça aille. Oui, il faut que ça aille très bien. Donc, tu as une façon de voir ta dysenterie, mhm. euh, hmm. bien ramener inflammation intestinale, bien ramener accompagné avec des diarrhées sanglantes. Absolument. donc, voilà. Donc, plus souvent causé donc, par euh, la bactérie euh, donc euh, muy ben contamination boo xam ne ci alimentation yi day jóge wala ci ndox yi euh, yi ñi naan donc. nawet dañu voilà d'habitude day nek sax vecteur de propagation parce que tellement que voilà dafa dafa dafa dafa doy war dal voilà donc dysenterie mom comme niñ ko xamee comme ni ma ko waxé sank rek ci alimentation manam ci lek yi lañ koy jëlé wala ñu jëlé ko ci ndox yi nga xamante ñi naan moy ndox yi nga xam dañuy usé wala lek yi nga xamante dañuy infecté dañuy euh, voilà am ay bactéries yo xamante ci nek yo xam boko boo wala nga naan ko daf lay indil euh, ay ay jaare yo xamante voilà dañuy tata Maïté mën nga mën nga lancer ben message mhm. nga ne nit ñi nañu bayyi di fo ci ndoxu yu taax xale yi dama leen di gis ñu melni ku nekk biir géej. non mais c'est pas possible quoi. xam nga xam nga dañuy wax naan euh, y a des années de cela bu daan taw nii da ngay gis ñun bon ñun ñëpp je pense que jaar nañ si da ngay gis. xale yi génn voilà nekk ci ndox bi di patauger di cappi cappi naan dañuy sangu taw xam nga mais tu tu te rends compte que de plus en plus dañ koy bayyi parce que tout simplement ndox yi léegi. bu ñuy ñëw dañuy saltay oh, li ñuy andal moo tax. dama gis ay boy dugg si biir ndox. mais du ay boy de ay mag lañ gis nga yaa une image là bu ñu wane sur internet. fële à rufis waaw ñi doon fay yi noonu ci ndox bi parce qu'il voulait traverser. mais dafa garaaw loolu. ci ndox boo xamante ne dafa xam ne y' une quinzaine de gosses dañu dugg si benn ndox. bu salte di si fay li may te wax la avant. golf avant avant da nga doon nekk sangu taw la maanaam ndox biy jógee ci asamaan bi. moom ngay taxaw moo ngay taxaw di sangu di cëppi cëppi. di mais léegi. et bu doon sax ci mbedd bi nga ko def sax ndox bi daawul salté noonu. mais léegi ndox bi xam nga comme on a bi am ci dëkk bi déjà nga xam te ne mbaliti fu koy romb taw bi buy jàll dafay yóbbaale salté yooyu yëpp ah. donc imagine toi nga nekk ci. bu ndox bu salté boobu noonu di ci sangu. non seulement ay arbustes nga ciy jëlee jëlee ci ay ay problème de la peau. xam nga jëlee ci ay dysenterie jëlee ci ay feebar yu jeex xam nga donc nit ñi nañ vraiment nañu moytu loolu bu baax a baax a baax parce que dafa dafa délicat oh. ba pare ni ma doon comme li ñu doon wax démb mm-hmm. rek ci kaawu choléra bi wax nañ ko ci kaawu yenn feebar yu bëri yoo xam te ne dañ koy gis ci dëkk bi ñuy nekk parfois ay pandémie pourquoi parce que tout simplement les gens ne prennent pas le soin de bien entretenir seen lekk yi mm-hmm. ils prennent pas le soin de bien couvrir seen lekk yi mm-hmm. parce que salte fu nekk lay jóge poussière bi ñëpp xam nañ ne poussière dafay ànd ak ay microbe yu du jeex waxatuma laak weñ yi nga xamante ne maar insectes yi en général mbóot yi moom waxaale ma sax suñu ah wax donc vraiment na nit ñi bàyyi xel ci loolu parce que kaawu dysenterie yi nii boo koy gis en général c'est parce que tout simplement y a de l'insalubrité absolument insalubrité moo koy indi tey nga naan ndox boo xamante ne dafa taaju yow xamuloon ndox bi fu mu jógee xamoo ndox bi lu fa jaar nga ñëw fekk ndox bu ñu teg rek nga jël nga naan hmm. te xamuloon na ndox bi set na mën nga ci jëlee façon jàngoro bu nekk muy dysenterie bi nga xamante ne voilà ay microbe la yoo xamante ne bu xasee bu dugg ci sa biir bi day yàq jàqate sa intestin yi mm-hmm. imagine toi nga am métitu biir boo xamante ne non seulement douleur abdominal bu intense lay dafa pare teg ci dafay ànd ak deret mooy li ngay wàccu day ànd ak deret booy dem au sel dafay ànd ak deret bu daw xam nga biir bu deret biir bu daw buy ànd ak deret xam nga loolu musiba la non musiba la da ngay gis ni ngay ni sa yaram bi di dégradé wooy automatiquement ni ngay jeexee tàkk mhm. tellement que dafay métti tu es obligé tout le temps de boire de l'eau pour hydrater wu waat parce que da ngay ndox mhm. ak yooyu yëpp donc muy feebar boo xamante ne daal vraiment nit ñi nañ ko moytu te li ta liy waral moytu bi yëpp mooy hygiène bi rek hygiène bi nit ñi nañu bàyyi di teg ñam te duñ ko ndax ñam boo ko ëbbulee weñ ñi dañ ci taxaw te weñ ñi buñ ci taxawee weñ ñi ñëpp xam nañ ne dafa dañu ànd ak ay microbe yu bëri yoo xam ne li ñëw déposé ci kaw lekk bi moo tax démb ñu ngi doon waxtaan sax ci le fait tey bu amee affluence yu mag yi comme ci genre événement yooyu nga xamante ne lekk bi dafay bëri xam nga voilà lekk bi foo romb da koy gis ah nit ñi di exposé seen lekk yi wala di jox nit ñi lu ñu lekk nañ koy couvrir diko diko di ko upp daal parce que mo gëna woor wala bok ñu ndox yi ñuy distribuer tamit nañuy ut ay ndox yo xamantene ay bouteille ay eau purifiée lay nekk wala ay eau minérale yo xamantene ne voilà dañu dañu sa doguma la démb rek maa ngi gis ci internet bi ñu ne dafa am benn marque buy defar ndox fi mhm. gaay dañ ko pirater dañ ko piraté c'est-à-dire marque boo xam ne day defar ndox eau minérale nit ñi di ko naan mhm. dañ ko pirater teg même bouteille yi mais cest à la newul li bi pirate la une doo ko gëm lenn rek différence bi ci bouchon bi bind original bi mënuñu ko bah oui forcément. non rek une différence imagine toi vous yow ndox bobu non ban façon ndox la. ak lan ak la lañ ko waxuma la mais nga non mais dafa melni tay ndox yi ngay romb ci bi xam nga avant léegi da nga daan gis par exemple transport en commun yi wala yenn taximan yeeg yooyu noonu chaque fois dañuy romb ay bouteilles ivian yu ñu sol parce que voilà ñoom dañu dañu bëgg xam nga ñu jënd <laughs> bouteille yooyu di ko naan wala nga romb ay bouteille yu jus nga gis jus bi rafet ba bëgg a dee nga mar naan nga naan ci oh. jus bi te xamuloo ban ndox lañ ko defaree xam nga <laughs> xamoo ban ndox lañ ko defaree xamoo nan lañ ban ah hygiène lañ defaree jus boobu noonu nga jënd bi est ce ko fan lañ ko jëlee ndax ci mbalit bi lañ ko foree ñëw ñu raxas marché nañu dem kooku jugal leen ko jaay leen ko ah, maa ngi romb benn dépôt bu yàggul rek boo xam te ne dépôt ay plastique ay bouteilles plastique yu bari yu ñuy déposer foofu la nit ñi moom la ñuy dem di jënd ji en quantité pour mën ci defaat seen jus yi di ko jaay bouteille yooyu xamuloo ndax raxas nañ ko bu baax est-ce que ça a été purifié xamoo ci dara yow da ngay jënd bouteille bi rek nga ñëw teg bouteille boo xam ne nit naan na ci peut-être ki ci naan sax dafa àndoon ak feebar xam nga boo ko raxasul bu baax nettoyé wu ko bu baax wala désinfecté woo ko bu baax mhm. parce que désinfecté tamit nañu nit ñi dañu xam ne c'est pas juste nga jël ndox ak eau de javel nga désinfecté non non non da ngay baxal ndox bouteille bi baxal ko ba mu dem ba nga xam ne dafa stériliser wu il faut uh-huh. nga stériliser ko pour que uh-huh. bouteille boobu mën a delluwaat à l'état normal boo deful loolu jàppal ne bouteille boobu microbe yi fa nekkoon yëpp da nga fa fekkaat non man dama gis image bu ma jaaxal mayte mm-hmm. da ngay gis gars

nañ ko defal quoi non moom laa lay wax ma ne loo xam te ne stérilisé woo ko parce que am stérilisé bi mooy permettre microbe yi ñu dee mhm. boo ko stérilisé maanaam température bouilloire bu bouillonnement boobu noonu nga xam ne moom lay nekk mooy waral microbe yi dee bu fekkee tu prends pas la peine de faire ça jàppal na yow butéel bi état bi nga ko jëndee woon loo ko raxas raxas ak javel loo ko raxas raxas ak ak ndoxu omo ak ñoomin seen tu n'as pas tué les microbes tata Maïté dellu si si li nga wax nii non li ma wax nii c'est <laughs> très très important et on le voit de plus en plus nit ñi dañuy jënd butéel n'importe où mhm. duñ ko stériliser dañ koy jël noonu ni ñu ko jëndee noonu rek daal di dem raxas lenkali raxas def ci hmm. omo ña ña ñaa eau de javel yaakaar ne set na jël ci def ci jus mu loolu taxul mu set hmm. bouteille bu xam te dañ koy utiliser ba paré bo bëggee mu set da koy stériliser. baxal ko ba mu am ben temps te ben température bo xam nga koy baxalé pour que mu mun ray microbe yi nga mën utiliser wat bouteille bobu noonu. s'il le faut ñu dem ci am fi ay entreprise de la place yo xam te ñom ils transforment ils font des bouteilles. Mhm. ñom lool moy seen liggéey. te cheratul dañuy défar ay bouteille bo fa démé da ngay dem jënd sa quantité de bouteille bi nga bëgg petite wala grande wala moyenne ils sont là pour ça parce que ñom seen liggéey la ñom dañuy recycler bouteille, yi défarat ko. am ci ben entretien bu ñu ciy def boo xam te ne dinañ la ko mën a jaay. et aussi c'est pour rendre hommage aux femmes transformatrices. voilà euh, de de de de nos de nos de nos de nos euh, de nos euh, de nos de nos jus. de nos céréales locales. ainsi de suite voilà les jus yi nga xam te ne ñu ngi koy créer. c'est vrai que c'est des femmes yoo xam te ne c'est des femmes battantes. elles sont dans la transformation mais ñoom tamit nañu bàyyi xel vraiment ci aspect boobu noonu parce que c'est très important xam nga tey nga dem jàng. xoolal li nga doon wax. waaw xam nga tey loo ciy jëlee xam nga tey nga dem jàng jàng jàng jàng defar dara pour le bien-être de tout le monde wala pour le bien-être vraiment de la population pour augmenter yenn affaire yi ba pare nga tek ci do jël hygiène bi nga xam tane mo ci war pour def ko ci mhm. da ngay indi nit ñi ay jàngoro donc dysenterie vraiment muy benn fièvre boo xam tane dafa metti torop ku ci mës a jànkoonteeg dysenterie xam nga li may wax mm. mé méttitu biir boobu noonu elle est extrême mënoo ko sax imaginer biir bu daw boobu moom beneen musiba la xam nga biir boo xam te ne day daw te du taxaw mm. wala biir boo xam te ne dafay daw ba mujj bi da nga koy gis deret xam nga loolu musiba musiba naa lay la loolu musiba la après da ngay obligé di nek fi def ay traitement yu metti tu tu as tu as du mal à être bien dans ta peau parce que do mun nek déjà do mun dem fu nek tu es obligé di ngay lelu parce que tout simplement voilà xam nga bir buy daw mom mun na la dab fu ne donc ak yeneen ak yeneen yo xam dañ koy gis donc nit ñi franchement ba pare lekku mbedd bi lekk lekku mbedd yi buñ ko mënee moytu nañ ko moytu parce que li tax tey yow peine bi ngay jël yow pour faire la préparation li ngay lekk sa kër ak hygiène bi nga ci def c'est pas ki nekk ci mbedd bi. qui bi euh, jus bi ngay sauce mu tak ba dang koy à l'état ay temps ay de c'est parce que nit ñi dañu génn ci mbedd bi gis ay lek yu ñu nga jënd ko couvrir. amna ay temps sax commencé won nañ di service d'hygiène daan parce que duñu couvrir sen lek yi dañuy tek sen beñe yi tek sen qui ci mbedd bi voilà duñ ko duñ ko hmm mais da nga da nga gis ne de plus en plus y a les les packs am na ay genre boîte yu yu plastique yoo xam ne la ñuy def yoo xam te ne da ngay mën a dugal lekk bi ci biir nga couvrir ko mais même loolu sax des fois nga dem taxaw ci benn jaaykat boo xam ne da ngay gis mun teg lekk bi ci biir environnement bu fermé sax mais nga seen fa ay weñ ci biir wala nga gis ko mu nekk sax si kanamu benn rigo wala benn affaire mais vraiment ce manque d'hygiène là après nous on veut vraiment vivre c'est vrai qu'on est dans un pays boo xam ne les gens n'ont pas tous les moyens peut-être de préparer certaines choses chez eux wala pour lekk c'est difficile donc ils sont obligés peut-être d'acheter plus simplement gën a yomb ci mbedd bi mais booy jënd tamit ci mbedd bi looy lekk tamit da saytu li ngay lekk ba pare xoolal ndax ki koy defar set na xoolal ndax ki koy teg foofu noonu ak li mu teg ndax set na ndax mu ngi ci mu yàqu parce que tey jii nii wala tàngalaat bi ñi nga xam ne dañuy jël lekk bi tàngalaat ko ñetti fan di ko jaay wala jël lekk bi fanaanal ko fukki fan ñëw tegaat ko di ko jaayaat ni nen nag nen yi moom mooy problème non man démb non man euh, démb barki démb mais sam doom bu ndaw mais dafa yeew le matin mu ne dafay jënd nen mais ñu jox ko mu dem jënd nen bi ci boutique bi mais bi mu dajee nen bi. dafa yàqu ñun ñëpp a daw. Ah waaw dama obligé sànneew dem jënd ben paquet ben tablette nen. bu lolu nak moy solution bi. te la belle affaire même tablette nen bobu ngay jënd da ngay xol sax tablette nen bi ba paré parce que parfois tablette nen yi dañuy yàgg ci ñom ba nga xamantene da fay dem ba tourner ci bi té yow doko xam. des fois nga jënd tablette nen toj parce que moitié tablette nen bi yeb du baax. yaay dégg donc motax il faut vraiment ñun vraiment il faut ñuy bayyi xel ci li nga xamantene lañuy jënd ak lañuy lek parce que dafa am solo tay am na yenn feebar yo xamné comme ay genre dysenterie yi da ngay

kii àndut ak sagoom moo tax muy def lii mm-hmm. xam nga ak yeneen ak yeneen yoo xam te ne ñu ngi koy gis ci dëkk bi franchement ak tey manifestation yi nga xam ne ñu ngi ñëw comme Magal Touba bi nga xam te ne mu ngi ñëw ça va faire une affluence de monde mm. il y aura à manger à n'en plus finir lekk yi dinañ fa bëri franchement ne nit ñi bàyyi xel ci di muur lekk yi mm-hmm. di protéger lekk yi parce que ngelaw bi dafay ànd ak ay salté mi weñ yi fu ne la ñuy taxaw ci lu ne weñ dañuy dem tak ci ndox bu salté bi wala ci mbalit bi après bu ñu ñëwee déposé la seen salté bu ñu gàddu wàll yëpp ci sa biir lekk bi nga lekk ko dysenterie mën na la ci fekk vraiment nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax te ñii di jënd ci mbedd bi tamit ñii di jaay ci mbedd bi sax laay njëkk def appel mhm. franchement nañuy protéger lekk yi ñuy jaay xam nañ ne li ñuy def yëpp c'est dans le but de se faire de l'argent et d'aider mhm. les gens qui n'ont pas les moyens mais tamit di dimbali nit ñi ba mujj bi sànk leen amul benn njëriñ et puis surtout exposé wu à des plantes limite voilà ak à la loi aussi donc nañu vraiment couvrir seen lekk yi di ko dugal ci environnement yu baax bu ñuy togg seen lekk tamit nañ ko def ci environnement bu set nagn ko def ci parce que tamit nit ki euh, mënuloo ne yow sa bop da nga set ba paré té li ngay défar du set loolu mënul nekk set setu ginaar moom eh, facile amul baaxul set setu ginaar maanaam boo génnee ci mbedd bi ñu ne kii moom oxo kii mënut a bañ a salte fekk ne boo duggee këram par loolu tamit amul amul sens te genre boo seetoo xale yi ñoom la ciy ñoo ci gën am ay problème parce que xale yi ñoom ñooy gën a exposé wu ci genre maladie mhm. lekk ko boo ko dul surveiller xale bi di mu indil la fi feebar boo xam te ne mhm. doo xam koy waxee mhm. moo tax ñun tamit nañu soññ suñu doom yi di leen jàngal tamit civisme di leen jàngal lan mooy lu baax à nous de leur parler à nous de leur dire de faire attention à nous de les protéger mhm di leen tëj ci kër yi di leen éviter loo ñuy lekk ci mbedd bi jàngal xale mu bañ di lekk ci mbedd di xaar gi mu lekk fa la poser question nga si mbedd bi ñëw sa yaay xam ah, man loolu ma doon def man tamit danaa ko tey nga dee je damay dem ba kër ga heure añ ci mbedd bi ah da ngay loolu bu bonbon jënd boutique ba mais lekk indi la ne sa yaay xam na ko te xam carnival repas

ku nekk indi sa kaas. gaa yi xel la jël mburu bi ak pain voilà ak chocolat non c'était ba pare à l'époque ambiance boobu dafa neexoon maanaam ndékki en famille c'est dommage que léegi amatul parce que voilà tout le monde a son environnement tout le monde a n'a pas le temps franchement de s'asseoir et de ndékki et de discuter avec ses enfants ses enfants et ku nekk ku ñëw di defal sa bopp les choses évoluent hein. aussi ah xale yi dañuy évoluer parents yi si boppam léegi toogatuñu avant suñu yaay dañ daan toog ci kër gi pour toppatoo seen njaboot balaa ñuy génn ñun léegi fajal nga yeewu dem bàyyi fi sa njaboot eh, doo xam sa njaboot lu mu nekkee les bonnes elles ne prennent pas forcément prédisposition ñu koy gaarwaale non gaarwaale dañu yew nee na dañuy yeewu suba teel dañuy liggéey si non dañuy liggéey ba la force la wax amatu ñu jot ñun tay suñu sama génération bi ak ñeneen ak ñeneen tay imagine toi man maa ngi xëy 5 heures du matin je sors de chez moi je vois pas mes enfants hmm. donc kan laa leen di bàyyil jànk bi hmm. jànk bi tay peut-être man pen bi ma mën a jël pour mën a pa toppatoo sama doom wala maanaam bëgg pas-pas bi ma ci mën a am toppatoo leen c'est pas forcément jànk bi nga xam ne jurul leen moo koy am donc qu'est-ce qu'on fait bàyyi suñu doom ak yàlla rek mhm. dénk leen yàlla rek bàyyi leen noonu donc xale yooyu tey euh, sociabilité boobu noonu ñu war a am duñ ko am mhm. parce que li li nga xam te ne moo war a sànc loolu noonu ci parents yi la war a jóge mhm. mais comme on est dans une période boo xamante ne voilà il faut courir avec le temps il faut chercher de l'argent on est obligé donc yu bëri dañ koy yu bëri léegi dañ ko démystifier on est obligé les deux. Voilà, en fait. donc alors que loolu dafa am solo moo il faut qu'on apprenne quand on a le temps de, de rester avec nos enfants qu'on leur apprenne des choses ñuy waxtaan ak ñoom di leen soññ ci li nga xamantene moy lu baax ak li bonne di leen wax ni que li baaxul ci ñom wala li baax na ci ñom pour mm. jangal leen ko pour que xalé yu tamit ñu mëna magalé màggaaleeg loolu ko comprendre mun ko moytu té ñun tamit mag ñi franchement euh, nañuy nañuy am aptitude bobu nonu di nekk ci environnement bu sain mm-hmm. parce que tay nekk ci environnement bu sain mo lay mucc ci yenn fièvre yi mm-hmm. tay des fois nga dégg ay fièvre yo xam ne xam fu mu jógee doo xam feebar bi mosoo ko dégg da ngay xëy rek dégg ko ci époque bi ñu toll nii lan moo tax parce que manque d'hygiène bi moo insalubrité ah, insalubrité bu chronique bi ñu nekkee ñàkk moytu li di togg ci n'importe quel environnement di teg togg ak n'importe quel chose ñu romb jënd bëgg ko togg mhm. des fois sax nga dugg ci benn grande surface boo xam te fay jënd produit boo xam te ne produit bi yàqu na doo ko sax xam nga jënd ko toggal ko sa njaboot jox leen ko ñu lekk ko musiba fekk la ci ay fayu hôpital nekk ci ay fayu xam nga mooy loolu daal vraiment donc na nit ñi bàyyi xel ci loolu surtout ñi di jaay ci mbedd bi chaque jour man dama koy répéter il faut qu'ils fassent attention bu ñu buggee vraiment li ñuy jaay mu barkeel ñu am ci bokk li nga xam te ne moom lañ ci yéene seen bopp nañu jaay lu set jaay lu sell parce que loolu tey mooy tax jaay bi ngay jaay noonu li nga ciy am noonu mu mun a barkeel boo ko defulee na la leer ba leer na li ngay jaay yëpp du mës a barke benn du la amal benn njëriñ et puis si c'est euh, si si c'est sur la base de ce constat là que de plus en plus ay ay regroupement de femmes day am si région yu nekk waaw parce que ñoom li leen yitteel mooy transformer suñu produits locaux yi hmm. def ko si ay bouteilles yu sell waaw en ah, sachet yu sell mais vraiment pour que ñoom seen i doom wala askan mi mën a jëriñoo ay produits de qualité yoo xam ne si ñun nañu jógee mais ça il faut le faire et après l'association des consommateurs tamit nañu jéem a allégé par rapport ak prix yi yenn taxi yi yenn yi. kan ma ndaw Momar Ndaw. non man moom waaye saa xoolal bàyyi nañu xoolal waaye yow wuy ma ah. tëjal sa kii. voilà balaa ñu tëb pour man association ay consommateurs xam lan la fi nekkee. gars yi jël leen jox leen ay poste ay ay CCCT.

pourquoi parce que tout simplement elles ont envie de sortir de cette routine et d'aider les gens et aussi de de am njëriñ ci société bi mhm. donc war nañ leen mën alléger les choses de que ñom li ñuy liggéey tamit ñu mën ci gis seen bopp et que mu bañ cher pour population nit ñi mën ko jënd parce que non seulement hygiénique na mais tay bu fekkee dañuy defar lu hygiénique ba pare teg ko fi pour accès bi gën a yomb ba pare derrière mhm. le prix ne ne joue pas avec mhm. mais elles ne vont pas vendre et si elles ne vendent pas ben, ça, ça, ça n'avance pas. Par exemple, le jus de ditarbi, tu l'achètes à 2000 francs pour 1 litre euh, de concentré. Mm-hmm. Mais facilement, tu peux 7 litres. Wow. Ça veut dire que tu vas dépenser 7 fois 1500. Mais c'est dommage, c'est dommage. Moi, je suis ont été dañuy gis ñoo xamante ne ditax boobu noonu ngay wax nii ils vont aller prendre des colorants pour le mettre dedans mm-hmm. jël ay colorants pour que parce que pour lan pour que ditax bi mën am couleur bu rafet mais loulou mais ñaata cas de dysenterie nga ci dégg wala ñaata cas de métitu biir nga ci dégg mm-hmm. parce que produit bi ñu ci rajouté noonu baaxul alors que elles peuvent aller prendre le produit naturel bi nga xam te ne mooy ditax bi bu manqué manqué na c'est un fruit saisonnier amul amul amul ngeen bàyyi ba saison bi jot ngeen defar ko pourquoi forcer les choses à vendre des gens des choses yoo xam te ne bu ñu ko lekkee dañuy feebar dafa mel ni madd tey mm-hmm. madd amul amul bu amulee da ngay gis dëkk bi dootoo ko gisati mm-hmm. ñi nga xamante ne dañ koy am tamit dañuy dem port jëndi ko fa te bu ñu paree tu vois même que ça joue sur le prix parce que mhm. ils ont du mal à l'avoir Il ne faut pas forcer les choses c'est pas parce qu'on veut forcément avoir de l'argent qu'on va faire de n'importe quoi mhm. De lulu, gars yi war nañ ci parce que ce n'est pas normal. un fruit saisonnier il y a saison bi nga na fi nga pourquoi par la force ba di def mais tu sais en fait dans mais pas naturel. dans dans dans l'agriculture d'habitude xam nga gay, euh, euh, en Europe quelquefois dañu dañu dañu dañu bay bay ba am excédent. excédent bi dañu am <coughs> des des des euh, des des des hangars. waaw de conservation conserver comme ça contre saison day am en fait. c'est-à-dire que saison bi su bokkulee ça ñom dañ koy génne parce que c'est rare et puis ils le vendent. mais filles, ils ont un réel problème de conservation. que ce soit dans le domaine pour poisson, yi euh, euh, madame les les les les denrées de première nécessité. ça devient compliqué. mais après le problème il est très simple. Mhm. la saison bi jeex fruit bi amatul amna fenn fu mu am. yow nga ne da nga ko bëgg defar par la force dama jëndi ko <laughs> boo ko jëndee na nga fexe ba defaree ko noonu après yow rentabilité bi nga ci bëgg am tegal sa prix bi nga xamante ne dina tax moo la arrangé bu ko nit ñi bëggee ñu jënd ko buñ ko bëggulee ñu bañ ko jënd bu fekkee ne nag gisoo ci sa bopp bul ko jënd mm. utile mm. leneen am na fi ay fruits yoo xamante ne yoo yoo xamante ne toute l'année dafay am mm. ñëpp xam nañ ko muy muy buy beeg non muy buy bi buy bi bisaab bi gingembre bi muy euh, danxal denxal denxal lañ benxal voilà muy benxal bi yooyu yëpp c'est des fruits yoo xam te ne ci arrive en benxal dafa neex <laughs> ay benxal ak yooyu yooyu c'est des fruits yoo xamante ne am na fépp eh waaye xoolal daxaar bu ñoragul xam nga bisaab blanc baa ngi eh. c'est des choses que tu peux faire nga defar ci jus yu neex nga jaay ko nit ñi nit ñi bu ñu gisulee ji tax dañuy naan leneen bu leen ko forcer bu ñu gisulee beneen fruit boo xam ne amul madd tey bu ñu gisulee madd dañuy donc il n'est pas dit que par la force on nga toute l'année parce que ce sont pas des fruits qui qui euh, toute l'année merci beaucoup merci beaucoup Tata Maïté nous parlions de la dysenterie vraiment attitude vraiment pour que nit ñi bañ à des problèmes gastriques de dysenterie dafa la maladie merci Tata Maïté King Santé